sama baat bi dafa dee ndax damaa sonn su ma sañoon tey sax du ma wax ndax damaa kontaan na kontaan na kontaan ba mënumaa wax waaye Cheikh Alassane Sène na nga xam ni Sénégal la bëgg jigéen ñi li nga leen doon li nga leen lebal ak li nga bëgg ci ñoom ak li nga nekk yéene ci ñoom muy aloo soxna may bii nga jagleel ko jigéen ñi da nga xam ni jigéen ñi ku leen lebal ñu fay la fii ku fi falu jigéen na la fal te ñun ñoo lay yóbbu présidence ñun ñii ñoo lay yóbbu ba présidence ku la jox ndekki nag bu la jugee añ dañ ko mën a gëm te mën nañ ko attan nañ ko am nañ kàttan bi te xalaat nañ ko Ndella Madior Diouf maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay ziar bu baax a baax sa teewaay maa ngi ciy kontaan ma leen di xamal ni léegi nag wurawe dafa dem këng xam nga li ci des dajale carte yi yéen jigéen ñii yéen a yor yi ngeen jël carte yi bari duma ci wax lu baree bari mooy jël carte yi rek su ngeen xëyee jël seen jëkkër yi jël seen jigéen ñi jël jël jël seen doom yi ndax ñun kat ñoo yore kër yi Fatou Guewel nee na jigéen ñoo ko yor te jigéen ñi yéen ñi yéen ko yor kon nag xëy leen teel a dem teel a teel a boote ji teel a joxe seen i kat jox ko Cheikh Alassane Sène mii ndax moom mii moo ko yelloo moom moo ko mën moo mën ci jigéen ñi moo yor projet yi moom daal moom rek la. ñëpp xam nañu sama diggante ak. Euh, Cheikh Alassane Sène avec toute son équipe avec Mansour si donc euh, di leen di gërëm di leen di sant si seen teewaay fii li si gën a am solo rek lenn rek la li si gën a solo mooy bulletin de vote naataange askan wi c'est ça qui est le plus important le 31 juillet il faut voter Cheikh Alassane Sène tête de liste naataange askan wi kon fépp foo leen dem bulletin de vote bi ngeen di jël muy dakaar au niveau de tous les départements. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ci seen teewaay depuis 15 man maa ngi fi depuis 13 ci suufu mais depuis 15 ñëpp a ngi toog si ma leen ni félicité si seen mobilisation di leen meeting bi c'est pas un meeting national c'est un meeting régional et on a de faire un meeting régional parce que xam nañu ni espace yi ñu am Dakar amu ci boo xamante ni mën na contenir suñu meeting national suñu commune ndax ñi fi nekk ñëpp Dakar lañ jóge délégation yi fii nekk yëpp Dakar lañ jóge benn benn ñoo jóge ci région yi benn benn mënoon nañ ko suñu neexoon woo région yëpp ñu daje mais on a jugé nécessaire parce que peese nañu suñu bopp ci Dakar xam nañu ni suñu woowee waa Dakar face bi dina fees. mbooloo mi asalaamualeykum. dama bëgg nag ñëpp maase wax ni naataange askan wi naataange askan wi naataange askan wi Alassane Sène mooy ki Cheikh Mouhamadoul Mountakha gërëm ki may jox kaddu gi moom la Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu Serigne Fallou ni ko yaay coobere yàlla lay jox kaddu gi moom la Cheikh Mahi Niass ni ko yow sa communication ñëpp ko war a déglu ki may jox kaddu gi mooy la jantal Mara ki may jox kaddu gi mooy may jox kaddu gi il est beau il est gentil il donne de l'argent le président Sanyas Kanam waa Dakar la fi woo boobu ba depuis trois heures nit ñi ñi fi toog di xaar maa ngi leen sant ci toogaay boobu ngeen toog fi di xaar ma nekkoon ci jeexal sama tournée ci biir réew mi maa ngi leen di sant bu wér kàddu bi nag du yàgg ndax li ñu fi waroon wax yëpp wax dañu ko li may def rek mooy ginnaaw bi ma leen sante ci ñëw bi ngeen ñëw fii maa ngi sant l'ensemble des investis du département de Dakar et des autres départements du Sénégal maa ngi sant femme femmes yéen ñëpp maa ngi leen nuyu jigéenu jigéenu Dakar yi maa ngi leen di sant ci ñëw bii ngeen ñëw fii di jiital ci sant gi suma soxna ñëwaale na tey pour la première fois ànd ak man ci jotaay bii di sant soxna May si organisation bu rëy bii moo indi tey jii ci bis bu màgg bi maa ngi sant le président Al Hassan Niang léegi lay doog a yegsi fekk juste may jóg di jóg di jël kàddu maa ngi lay sant ci sa teewaay moom itamit dafa nekkoon ci tournée moo tax mu yéex a yegsi loolu yëpp ngir yaatal liggéey bu am solo bii. ñuy liggéey ci réew mi maa ngi nuyu les jeunes yéen ñëpp rawatina ndaw yi nga xamante ñoo féetee Grand Yoff féetee Pikine féetee Ñaari Tali ak Grand Dakar féetee HLM féetee Parcelles Assainies féetee Guédiawaye féetee Kër Massar maa ngi leen di sant seen taxawaay di santaat xale yi nga xamante ne ñoo bàyyi ko yëmbal du ma leen nekkat fii di dellu siwaat sur les projets vous les connaissez parfaitement muy allo Soxna May bi nga xamante ne nous avons décidé d'injecter 580 milliards dans cette banque des femmes beneen projet bi mooy le train à grande vitesse nga xam ne nous avons décidé def ko fii ci réew mi ce train qui va révolutionner le train en Afrique maa ngi sant le directeur de cabinet Abdourahmane Diaw ci taxawaayam ci nangoo yaatalam ak ci organisation bu bii mu am jagleel ko la coalition naataange askan wi nous avons un problème de temps parce que à minuit ci la lépp di taxaw tey ji ci campagne bi te nous avons une autre tournée à faire tout à l'heure ci biir Dakar pour compléter li nga xamante ne defuñu ko diggante fas ak Médina ma leen di waxaat benn mbir élection bi yegsi na gannaaw suba la incha allahu taala mu nekk élection bu cruciale ci réew mi li ci jiitu mooy ñu envoyé un signal fort au président Macky wax ko ne dañuy tere troisième candidature fii ci réew mi loolu na leer ne kenn du ko nangu ci réew mi loolu mooy lu wér waaye nous allons le faire avec diplomatie nous allons le faire avec intelligence nous allons le faire avec tout le respect bi loolu leen demandé maa ngi leen di santaat bu baax ci vraiment durant ces vingt et un jours mobilisation exceptionnelle yu am maa ngi nuyu waa Bargny maa ngi leen di nuyu ci seen taxawaay

am na benn bu maroo bu am bopp fas boobu ci mbalit bi la jëm jarul xeex jarul xuloo jarul ngaayoo li am solo mooy jël ko moxoñe ko def ko ndànk ci mbalit li ma nar a xeex mbokk yi guddi na yàgg maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat dig daje bis ñuy def notre meeting d'investiture bu nar a am ci Dakar jàmm ñu mat sëkk la ñu bëgg ci réew mi yal na ko yàlla def vive la paix vive le Sénégal vive la République asalaamaaleykum